effectivement waaw mais là je crois que la loi dit que booy génn da ngay déposer de. oui mais mais mais sinon mais du am sens. non ça n'a pas de sens c'est-à-dire que bu du pour mu gën am sens. Mm-hmm. loolu loolu ça devait la logique. Mm-hmm. parce que boo boo gisee ñu lay naan déclarer sa patrimoine mhm. c'est pour que ñu xool après évaluer par rapport yow boo siy jógee nag lan nga lan ngay lan nga yo parce que man j'ai pas ci président en tout cas président yi ma fekkee Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky Sall yëpp j'ai pas mu am benn président boo xam ne mu ngi génn comment dirais-je euh, après avoir cessé sa fonction mu def déclaration de patrimoine mhm. déggaguma ko fenn à chaque fois nag ils font des déclarations de patrimoine lay def alimenter rek la chronique au niveau de comme tey euh, les journaux d'aujourd'hui mhm. on va dire que on va spéculer ñenn ñi naan non kii en quinze warul am lii il certains <laughs> journaux qui l'ont dit d'autres qui vont dire que euh, Bassirou je crois il y a riche de ses dettes mhm. xam loolu aussi beneen lecture la mhm. ça dépend de ku nekk daal fi nga fi nga donc on on va beaucoup fantasmer sur la richesse des gens et puis Sénégal moom fii dafa mel na y a une y a un bu fi bu fi am mooy le le le le délit de je pas délit de riche nit ki bu la dara rek day naan doonoon kii lu mu am jaaduwul kii c'est pas normal alors que bon tu regardes pas wala avantage yi mu amoon ak le le nombre d'années qu'il a passé à ci poste bi mu amoon. bi xam ne mënoon na ko permettre mu am loolu wala mu am sax lu ko lu lu ko ëpp. ay milliards ay non que mu doon milliard. ou ou non mais un fonctionnaire mu am milliard Sénégal fii tamit. non non non je non je je je je je je parle je, en termes de milliards ou bien en termes de millions c'est-à-dire que dafa am loo xam ne bon hmm. man je pensais justement au cas de Bassirou Diomaye Faye hmm. je disais que ñenn ñi dañuy naan il s'est il par rapport à tant de passage bi mu bi mu def au niveau de la fonction publique ñenn ñi il que il il n'a rien parce que la ñaata nga waxoon sànq sax dans son dans son hmm. ñun ñii sax lu ñu pauvre pauvre pauvre nos comptes nos comptes ak comptes euh, d'épargne yi dépassé nañ 2600. donc euh, am na loo xam ne épargne. peut-être que fonction bi mën na justifier nit ki am loolu. Mhm. mais sénégalais moom à chaque fois ñun on aime fantasmer sur la sur sur sur sur la sur la richesse des des des autres. en disant que kii warul am lii ki warul am lii mais li gën a li am li gën a am solo te man je reviens là-dessus. mooy que nañ fexe ba à ce que le président de la République en en fin de fonction mu def sa déclaration de patrimoine ñu xam ne kii kat lii la déclaré woon bu muy dugg lii la déclaré bi muy génn donc ñu xam ne. si c'est de temps wala benn. mais est-ce que est-ce que est-ce que difficulté bi euh, hmm. du ci voilà euh, bu ñu waxee yenn somme yi la am euh, du ñu indi ay polémique alors que. mën na enrichir boppam euh, alors que loi moo ko permettre koo xamante ni am na ay fonds spéciaux bu ko détourné dugal ci poche am aussi kenn mënu ko ko tere. mais au nom on est on est transparent ou on ne cest dire il faut pousser la lutte la transparence xam nga koo xam ne mi ngi ñëw. ko dina yomb day am caisse noire am loo xam ne dañ ko koy nettal chaque année. te kenn du ko vérifier voilà voilà effectivement mu def ko noonu mais gars yi du ñu yem ci loolu bu seen caisse noire yi la yem sax ñu ne waaw Macky Sall de fi mu toll nii moom. <laughs> naa bu defoon déclaration de patrimoine à sa moom sénégalais yi dinañ dinañ yuux mais loolu nag moo war a nekk le combat nag le prochain combat moom combat yi aussi est-ce que bokkul euh, ci ñu publier yeneen déclaration de patrimoine yi nga xamante ni ñeneen ñi wala euh, ñu ñu assujetti à ce que ñu def ko ñu publier ko rendre ko public waaw ministre yeeg DG loolu aussi c'est c'est c'est important parce que man man euh, encore une fois la déclaration de patrimoine amul sens tant que le citoyen n'est pas édifié par rapport du début à la fin. Mhm, mhm. parce que boo ko encore une fois mën naa la ñëw nee na man bi may dugg si euh, station bi bi may dugg si euh, position bi. 1000 mais boo bi may gën a boo ko xamulee. kon lan ban njëriñ la la amal yow le fait que ma lay defal déclaration de patrimoine. ça n'a pas de sens. bu fekkee ne yow mënoo doo ma mun a évaluer bu may dem. kooku kay mooy eh, eh, kay mooy élève boo xam ne dafa dugg école rek di réussir ba euh, jour bu bac jot ñu nekk non jàllal on va plus t'évaluer. Mhm. tu as fait tout ton cycle normal mosoo redoublé. Mhm. léegi mën nga jàll c' la même chose. tant qu'on n'aura pas cette déclaration de patrimoine bi nga xam ne moo ciy mujjee parce que boobu moo si gën a importance mhm. sinon la première déclaration de patrimoine là amul amul amul amul amul njëriñ quelqu'un titre indicatif la rek pour ñu mën a xam ci diggante bi kooku man man saanaa amul benn njëriñ kii bi la constitution dafa ne le président élu fait une déclaration de patrimoine président élu la wax de. le président élu. Mm-hmm. le conseil constitutionnel la rend publique. Mm-hmm. loolu la ñu wax. Mm-hmm. donc on n'a pas dit le président en cessation en cessation de fonction. le président sortant bon de toute façon de toute façon ça a déjà été une bonne chose. qu'ils nous disent qu'ils perçoivent moins de cinq millions par mois. oui. oui c'est que c'est que comparé maintenant à un ancien président ça veut que même l'ancien président oui est mieux payé que le président de la République en exercice mm-hmm. Mm-hmm. parce que le président de la République euh, l'ancien président boo jëlee Abdoulaye Wade Macky Sall ils ont millions 9 millions 700 9 millions 700 par mois mm-hmm. alors que yow le président en exercice yow yow yaa si nekk tu es à moins de euh, combien. à 5 millions brut quoi. 5 millions brut bu ñu dindee impôts yi. voilà Bassirou il se retrouve avec 4 millions 809 mille je crois 300. bon c'est ça ça ça paraît un peu paradoxal quand même. Mm-hmm. bon mais il est vrai que bon boo gisee le président en exercice également. il est couvert koo xam ne doo fay loyer doo fay doo fay euh, ndox doo fay courant non du fay tous waay xamoo xamoo doo fay dara dépense sax doo ko joxe <laughs> donc kay boo bu ñu lay jox yore fonds spéciaux yore fonds mhm. yow mi nga xam ne yaay fayee ko dix millions par mois moom muy fee ko deux millions sax moo lay gën a riche indemnité yi buñ ko boolee ci salaire bi day romb ah, ay dix millions di dem ah, parce que voyage bi nekk ay indemnité lay de DG gagne ah oui oui non amul amuloon euh, mais mais amul amoon na DG bu nekkoon fii. tout c'est Thierno Alassane Sall moo ko il percevait 15 millions. RTP 15 millions. alors que le président ça dire que y même des DG yoo xam ne ils sont beaucoup plus riches que le président sont mieux payés que le président la République. Macky Sall kay li mu fi liggéey moom moo waroon di fay Sénégal. <laughs> non c'est vrai. est-ce que euh, Mame Birame du ñu joyanti boobu les lois ci déclaration de patrimoine euh, surtout ministres yeeg DG yeeg maire yi euh, bu ñuy dugg ñu joxe seen ñu def seen déclaration de patrimoine mais aussi bu ñuy génn ñu def ko bu ñu ko munta justifier ñu dugal leen ci enrichissement illicite. defe naa loolu la loi bi tënkoo de dinaa mhm. mais je pense que da ngay déclarer à ta bi ngay dugg booy génn également nga defaat beneen déclaration. pour pour les ministres. pour les ministres pour le président de la République. oui je dis la conscience est claire la conscience dafa ne le président élu fait une fait sa déclaration de patrimoine le conseil constitutionnel la rend publique. xam nga le président élu le président élu waaw le président élu ok mhm. mais les ministres moom je crois que les ministres ils déclarent à à l' entrée et à la sortie. Mhm. mais xam nga de toutes les façons. pour man loolu yëpp mënul tee sunu gars yi ñu il mhm. faut que tout simplement. mu nekk dans état d'esprit wu ñii ñuy jiite. Mhm. ñu xam ne xaalisu askan wi kenn du ko laal te également ñu dugal ci code pénal bi loo xamante ni ku ñu fi euh, accusé topp la nga dem tribunal ba ñu reconnaître le coupable de détournement de deniers publics. Mhm. kooku waxuma la cinq ans mais warootoo politique Sénégal définitivement dañ laa war a radier des listes électorales. am na yoo xamante ni. Mhm. boo détourné argent public mais dañ lay fusiller. waaw dañ lay donc loo xamante ni ñëpp a ko bokk surtout dëkk boo xamante ni dafa ndóol pour ñu mettre en place un budget il faut que ñu nangul li jaaykatu jën yi yor nangu ci maire yi jaay caaf mhm. dajal lu ne jox ko ay nit ñooñu waruñu détourner xaalis boobu donc état d'esprit boobu la ñu war a am parce que patrimoine mun nga ko déclarer mu nekk sa tur mhm. mais nga jël ay immeuble def ko ci turu euh, euh, Georges Nessa def ko ci turu Ibrahima Anne def ko ci turu Omar mhm. xelal lu dul jeex. effectivement bi la war a doon te pour ñu yegg foofu il faut que véritablement ñuy teg ci yoon ñi nga xamante ni dañoo détourné ba mu leer. Mhm. am na solo oui président la république nga xam ne booy voyager da ngay yore sa maletu xaalis. gasi kenn du ko complété kooku kenn du la contrôlé. <laughs> gasi ah gasi kay di ko jaajëfal bu baax a baax moom Georges Nesta Diop ak Ibrahima Anne di jaajëfal aussi Mame Birame Wathilo ak euh, DJ Yu di jaajëfal ñu doon topp